ok mais fenêtre bi bi bi weesu bu Monastir bi euh, y avait quand même une une certaine pression yow à votre niveau yo. est-ce que sentir une bonne pression bi juste avant avant conversion de démarrer surtout que euh, dafa amoon quelques contre-performances à Alexandrie. waa pas pression ba dama ko effectivement xam nga aussi bu ñu jëlee lu mel ni réew bu ñu la dénkee dara euh, ñu dem di jouer ak suñuy nawle li nga bëgg mooy am ndam. Eh, mais export la aussi export da ngay gagner di perte euh parce que ni ni wara xam aussi moy ñun li ñuy def pour gagner loolu la yeneen pays di def mbaa di def lu ko raw pour gagner donc bu ngeen tase kenn mën na gagner tey suba keneen perte suba mais ñun suñ biir waxoon nañ ne objectif bi mooy ñu jéem qualifier coupe du monde Euh, comportement bi ak résultat wu monastir bi c'est vrai euh, euh, wàññi woon na wàññi na suñuy chance du wàññi woon sax parce que ba léegi daf ñu topp. Mhm. parce que aujourd'hui bu fekkoon amoon nañ résultat yu baax Alexandrie qualification bi day gën a yomb parce que man li ma wax xale yi dama leen ne bu ñu fi nekk di calculer nangam ak nangam lu nga xam ne nii mën nañ ko def pour qualifier à cent pour cent duñ fi nekk di calculer. mooy gagner les six matchs et gagner les six matchs ça passe d'abord par gagner trois matchs Monastir yi def nañ ko si fullaak fayda ak jom ma leen di féliciter di leen remercier di féliciter également entraîneur bi ngañ sa Ngagne Desagana Diop di remercier ñëpp encadrement médical encadrement technique les fédéraux ñëpp daal ñu wane ne effectivement administratif vraiment sant ñëpp waaw